asalaamaaleykum mbokki senegal ñu ngi leen di nuyu ci seen émission démb seen émission démb nag tey mi ngi leen ñëwal fii ci dëkk bu ñuy wax Ziguinchor di capitalu Casamance e, Ziguinchor boobu nag e, ñu bari wax nañu ni sax baat bi mi ngi jóge ci portugais yi mooy Cheguei Choram. baat bi di soppeeku ba ñu koy wooyee léegi Ziguinchor ndax baat boobu portugais yi doon wax moo di yëgsi naa maa ngi jooy ndax booba dafa am bato yu fay ñëw di fa jël si ay jaam jaam yi nga xam ne moom la tubaab yi doon jël di leen yóbbu Amérique ci àdduna bi yépp loolu nee nañ moo indi baat bi waaye am na ñeneen ñu wax yeneen version ci biir waxtaan wi bu soobee yàlla dinañ ko dégg eh, Ziguinchor bii nag nga xam ni mooy capitalu euh, verte Casamance xam ngeen ni moom comptoir bi ñu ngi ko sanc 1645 et euh, portugais yi jaar nañ fa anglais yi jaar nañ fa euh, français yi jaar nañ fa ba ci bi ñu yëgsee ci traité bi nga xamante ni ci la France ak Portugal parce que booba Portugal am na parti bu mu occupé ci Ziguinchor euh, France it am na parti bu mu occupé woon ca wetu Guinée Bissau ñoom nag ñu daal di weccoo portugais yi jox complètement Ziguinchor français yi français yi jox leen dëkk bi nga xamante ni moom lañ yoroon ca Guinée Bissau traité boobu nag sax ñu bare bare interprétation yi bari na ci waaye traité la boo xam ne comme ni France weccoo woon gore ak Banjul noonu rek la demee parce que tubaab yi dañ doon seet kenn ku nekk fa nga xamee te ni fa nga yaakaar ni fa la sa sécurité ëppee fa la sa kaaraange nekk Eh, ngeen weccoo ci seen biir comme ñoom Afrique dañu meloon ni seenu beñe wu ñuy séddoo loolu moo indi traité yu yu bari yooyu dëkk boobu nag tey jii ci lañ leen ñëwal pour waxtaanee histoire u Casamance xam naa dañ koy tàmbali rek dañ ko jéem di wéyal ndax réew mu am solo la bu am taarix la. ko sànc bay nañ ko ñu ko sànc jibeloor moom moom fii bay nañ ko jibeloor ñoo moom fii ñoo ko jëkk sànc xam nga ki nit ku ñuul comme ni ñu ne tradition orale bi amuñ binduñu ko africain binduñu mais portugais bu ñu ñëwee fii au quinzième siècle en 1456 bu ñu doon romb fii pour dem Brikama romb nañ Ziguinchor fii en donc en 1670 déjà Ziguinchor sanc nañ ko bàyyi na kii nekk fii ñoom moom fii boo gisee Ziguinchor Ziguinchor dëkk yi ko wër bay na koy dëkk bay na koy la à l'est jibe jifangor dëkk bay na la à l'ouest ak Jibonker dëkk bay na koy la au nord Tobor dëkk bay na koy la au sud Bourafay Baynu kii la le premier village Bissau Guinée jéggi Baynu kii la waaw boobu mooy mooy mooy ne comme ça que Ziguinchor lu ko wër yëpp dëkk Baynu kii ñoo ko wër waaw fii Baynu kii ñoo ko moom waaw portugais yi bu ñu ñëwee fii en 1645 ñaa ñoo ko ñaali ñaa leen tereel Baynu kii ñoo leen ko ñoo leen ko teral en 1645 Baynu kii ñu nekk fii ñoo leen toggal fii pour ceux qui ñu toog nañ fii de 1645 à 1888 243 ans ñu ngi fii ak Baye Nunki ba français ñoo ko ñu de ba français ñoo ko ñu de nga xam ne fii jigéen sol fii Baye Nunki ñoo ko moom waaw fi fa la ñu dëkkoon Escale Escale la ñu dëkkoon portugais waaw ñu dëkkoon ak bu doodi kande mi muy kii kande mii bu ñu demee dinaa bay bay bay nu ki bay nu ki ñoo ko ko moom waaw Kanjalam bi bay nu ki ñoo ko moom waaw bay nu ki ñoo ko moom dégg nga deux cent quarante portugais ñu ngi fii français bu ñu la ñuy dax bay nu ki kii boobu wër escale ñu dugal ñoom pour ñu dugg ci biir mooy Bukot ak Sànc ba ak Korentas mooy mooy bay nu bay nu la waaw ñoo ñu fi sanc même kaabu bu nga si kaabu kaabu mi kaabu K A B O U boo jëlee ci sama kaabo sant bay nu kii la ñooñu ñoo bay nu ak landumaay balaa soosee di avant l'arrivée des Mandingues au treizième siècle bay nu ko ñoo ko ak landumaay xeet bu mag la xeet bu mag la soosee moo laa wax ne soosee ñun fu ñu jógee fu sori la ñu jógee Égypte la ñu jógee au treizième siècle avant Jésus-Christ dégg nga lay fa jóge ñëw mu boor boor bi comme nu mu nu mu ko waxee li tubaab li ñu ko waxee mu ne en géographie traditionnelle ba ñuul l'est est du Grange Grange l'ouest est du Gounoune ceux qui ont quitté l'est Égypte fa lañ jóge ñooy berceau de l'humanité la Arabie Saoudite bu ñuy julli fa la ñuy la ñuy penku la ñuy penku Éthiopie lan la nous sommes des noirs Israël lan lan la c'est l'esclavage Israël esclavage en Égypte poussé par les effets migratoires se sont retrouvés à l'ouest du continent africain bu ñuul waaw bu ñuul au singulier on dit uñuul au pluriel on dit ba ñuul waaw waaw ba ñuul soose yi mënuñu wax ba ñuul ñu ne bay noonu loolu moo moo moo des officiellement moom la ñu téye ñu ne bay noonu ko mais booy sa kii documentation Christian Ross musulu indi binde bay nu ko mukk ba ñuun bu ñuun west ma ne as lañ jógee as ñëw west bu ñuun waaw ma ñu jógee ci pencu ñu dem ci soow voilà loolu waaw on a pris le nom de notre destination géographique waaw soosey singulier ñu ne uñuwun pluriel ñu ne bañuwun soosey nag mën nañu wax bay bay ñu ne bay nunk moom moo des officiellement waaw booy see Casamance fii gannaaw yàlla bay na ko ñoo ko patrimoine bay na ko la fii xeet yi fi njëkk yëpp benn ko ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñii dañuy ñëw fii la ñuy fekk balante fii la ñuy fekk soose soose waaw treizième siècle kaabu kaabu kaabu kaabu foo lay nekkoon balaa ñuy ñëw man ka landuma yi ak bàyyi na ko ñoo nekk kaabu balaa soose di ñëw au treizième siècle ñi bàyyi leen foofu ñu ñëw boor bi vers l'ouest guñu woon ñu bi bu ñuy jëfante ak pël yi foofu pël yi dàq leen bu leen pël dàqee en 1865 bu ñëwee kii Pakaaw ñaa ñoo leen dal bànn ko ñoo dal <laughs> bànn ko ñoo dal waaw en 1865 bu ñu xëyee ak pël yi ah ba leen dàq leen foofu Turbankelo waaw ñu ñoo leen dal foofu bànn ko ñoo dal pël yi mu ne 14e siècle lan la moo indi xam nga nag. comme juri ñax moom rek lañ doon wut ba ñu ñëw fi waaw plante yi ñu jógee tam fa jënde lañ jóge balaa ñu ñëw fi waaw ñëpp ñun ñëpp foofu lañ jógee Égypte Guinée bi Mali Guinée Conakry Guinée Bissau Casamance na Casamance naka même Dakar bu nga gis ni Dakar en 1450 les Baïnouk habitaient là-bas avec les Socé à 1450 bu ñu demee dinaa la ko won c'est le marché Cap de Égéguis ci recoupe avec Ziguinchor nga xam ne bàyyi bu mag la bu yàgg la waaw waaw xet bu mag la bu yàgg waaw waaw. mais entre kaasa mooy kasanka ay baynuku lañ mansa wode roi en mandeng kaasa tradition mansa kaasa bien kasanka ay baynuku la comme ne Ziguinchor ñu dëkk Ziguinchor fii ce sont les deux groupes les kasanka et les et les Ziguinchor Ziguinchor yi changé Ziguinchor kasanka moo moo moo englobé yëpp jigéen Ziguinchor moom la may ay Ziguinchor ay Ziguinchor ñoo dëkk ñoo koy bàyyi na ñoo dëkk fii mu ñu altéré portugais bu ñëwee ñu ne Ziguinchor français bu ñëwee ñu ne Ziguinchor question de vocabulaire la voilà comme par exemple Gumel si sa xam na foofu Gumel mais Gumer lañ ko wax ci bay nu ki Gumer c'est-à-dire le sel par une déformation linguistique ñu ne c'est Gumel Gumel le gouméer le waaw xorom la xorom la par rapport abu doodi boo xam ne liggéeykaay la waaw ki gouméer la gouméer une déformation linguistique ñu ne gouméer waaw Ziguinchor tam noonu la ay Ziguinchor ñoo fi dëkk Kasanka moo moo moo embrasé yëpp moo formé royaume bu nekk Birkama suñ capitale bi Birkama mooy Casamance fii béy na ko ñoo moom gannaaw yàlla benn kii ñoo ko moom un peuple pacifique un peuple ouvert extrêmement tolérant xeet yi ñu fi nekk yëpp fi la ñu fekk ñu ñu bu loolu amee bu ñuy xeet kii bu lii du am mais ñii dañuy jóg ñu jël gànnaay ñi xam ñu si dara loolu tax mu yàgg 36 mais bu ñu toogoon waxtaan li du am il faut que ñuy toog baynu ki jolaay soose yi pël yi séeréer yi olof yi tukulóor yi ñoom ñëpp ñu toog ñu waxtaan li du am tant que ñi ñi ñi li ma nim lii les onze communautés ethniques tooguñu waxtaan du am xam nga amoon na jamono bu nga xam ne bu conflit bi commencé a Casamance dañu waxoon ni am na benn kayit bi nga xam ne français ñu ko signé boo ne ni que Casamance tax indépendant ak Sénégal bokkul ak Sénégal donc euh, kayit boobu nga lay loolu gars jël di ko ba di ko di ko wane di ko wax ci dëkk bi ñu ñëpp gëm ko mu amoon jamono bi nga xam ne mu am beneen lieutenant abi jamakour bi nga xam ne d'accord moom dafa jaaxal ko mooy Sidi Badji loolu mooy indi coow li moom diggante moom ak Sidi Badji si Sidi Badji gedd génn bakki bi ñoo toog Ziguinchor ah ñoo tax ko Ziguinchor à résidence surveillée bu ko defee nag ba mu gaañu ba léegi mu mënoo laaj Jambacoune euh, ana kayit bu ngay wax ni que Casamance am na indépendance wane ñu ko moom dem na ba mu gaañu gisul kayit ñun nag Casamance tamit gam am ko gaañu na ba léegi gisaguñu kayit ba xam nga kayit boobu génnoon ba vraiment ñëpp du lépp doon am mais malheureusement kayit bi ñëwagul mais traité boobu mooy laal mooy traité bi de entre diggante français yi la ak. Euh, Bainou Kay la le roi de Brikama maanaam euh, portugais bi ñu ñëwee Ziguinchor fii ñoom Ziguinchor la yemoon diggante euh, kii Anta Ñaagis ak mooy Brin Anta Ñaagis ak Brin foofu la yemoon donc sori ñu woon donc dem ba ci frontière ba wala lu ñu am ci territoire fii dafa tuuti trop alors li ñu bëggoon nag yor yaatal seen territoire ñu commencé di dugg nag ci ci lu royaume de de de de Brikama. ci la buur bi Brikama oo wax français yi dañ ko ñëw jàppale parce que à ce la là français yi ñu ngi nekkoon caravane dañu ko ne yow jàppale ñu parce que portugais ñi ngi bëggoon nag nangu suma suuf portugais bi ñu ñëwee nag ñu signé benn traité traité boobu de protectorat la woon diggante euh, portugais ak ak maanaam français ak kii pour empêcher portugais tere portugais yaatal seen territoire yokk seen territoire ñu bloqué leen à Julkuna jur ko nag mooy boo demee ñaagis tuuti rek ci virage ba mooy foofu la gaa yi foofu la gaa yi bloqué si portugais yi te te boobu nag la gaa yaakaar ni que danga maam euh, Casamance indépendant moom la gaa jël jax boole ko jaxase ko ak lii lii Casamance am na indépendance. Casamance lu gën a indi li indi coow li yëpp Casamance coow Casamance bi man dama ko jàppandi que falsification histoire xam nga taarix boo ko jëm a falsifié rek da nga indi conflit da indi problème moo tax boo xoolee taarix euh, conflit yu bëri. maanaam xeex yi jàppante yu ci ci adduna bi lu ko indi mooy falsification histoire. fii Casamance léegi vraiment xeet yëpp ñoo fi dëkk léegi ni mun nga gis ay Nigérien Ivoirien nga gis Camerounais nga gis xaw ma nu ñu koy waxee bépp ethnie bu nga bu nga mën a am Afrique da nga koy fekk fii Casamance daanaka léegi Casamance Casamance pour ñëpp la donc boo ci seetee seet bu baax ci monde bi sax nu muy évoluer. tey da ngay gis bay nu mu sey ak joola nga gis bay nu mu sey ak wolof nga gis mankaañ mu sey ak wolof mu sey mu sey ak séeréer fàtte naa sax séeréer séeréer yi bëri nañ fi donc moo tax euh, Casamance dëkk bu nga xam ne neex na dëkk te dëkk bu nga xam ne ñun ñoo ñëpp ubbeeku ku ñëw ñu ak accueillir ñu jox la fu nga dëkk nga dëkk bu baax l'essentiel bo amulee boo du indi fitna moom defe naa fii sa dëkk la donc xeet yi yëpp fii lañ nekk boo xoolee c'est vraiment c'est la retrouvaille donc moo tax ma ne souvent fii dëkku ñëpp la ku nekk foo ne am jàmm sa dëkk la jàmm ji lu koy indi fii Casamance mooy lii mooy lu ma jóge di wax ni mu bañ a am xaajalu mu bañ a am ci tubaab bi nu ñu ma rejet nu ñu bañ a am ne kii du waa fii mais képp nga xam ne ñëw na fii te fi neex ko ñu ubbil ko bunt bi mu installé beneen bi mooy lan ñu renforcer waat développer suñu culture parce que suñu culture lu ñu amoon ci aada mu ngi commencé disparaître te loolu boo xoolee ci village yi suñu suñu histoire suñu maam yi nuñ doon nuñ doon waxtaane boo jëlee Casamance fii boo jëlee la la reine Aline moom dafa combattre tubaab bi pour ne leen ñun fii si mooy suñu dëkk kenn di ko ñëw moom ñun tubaab bi bu la ñëwee ngeen ñëw dëkk ngeen dëkk bu leen mën a dëkk ngeen dem feneen ñun ñun africain fii ñu africain yëpp fii mooy seen place donc ñu am ci hôpital bi nga xam ne ñun il faut ñu ñu ñu encourager loolu beneen bi boo jëlee ci mankaan man mii mankaan boo jëlee aada pour renforcer jàmm bi mooy boo jëlee aada ci mankaan dañ leen ne tour deret dafa xaraam ci makka te defe naa ci joolaay boo demee Kaasa maa euh, defe naa ñoom foofu tur deret dafa xaraam boo demee ci baynunki boo xoolee bu baax a baax a baax dëkk baynunki ñu bëri euh, boo demee foofu dafa fekk dafa fekk militaire bi yëpp nu mu tàng tàng tàng ñoom kenn bougé à part quelques à quelques expressions donc dafa ni ñoom am nañu aada bu nga xam ne ñoom bu ñu ko yëkkatee dafay protéger seen seen dëkk donc aada dafa am solo boo jëlee ci mankaañ bu ñu demee ba jaaxle ah dañu dañuy jóg dem gis dem ci aada c'est la même chose ci ci te lu ma lu ma am comme information ci joolaay boo demee usul ku nga xam ne dafa tuur deret boo fay dugg il faut nga dem purifier moo tax donc mooy ne te bu ñu utiliser effectivement moo si ci la émission bi am important ñun nañ jël souvent côté tubaab rek mais boo xoolee histoire conflit bi sax balaa ñu dem combattants yi ñoom ak seen seen responsable yëpp dugg nañ ci àll bi dem ñaani dem à la tradition pour ne ñun lii la ñu bëgg ñu ngi am am na lu ñu sumb dañu bëgg mu am te loolu aada bi il faut ñu dellu si waat tey ñu ñu ñu accompagner ñëpp ñu demoon foofu ñu dellu dem ñaanaat pour jàmm ñëw loolu mooy importance culture wane ne que tubaab am na culture mais ñu lu ñu am comme culture maanaam ci gestion de la paix ñu ne dañu am na benn lu ñuy le système traditionnel de la gestion des conflits boo xoolee tey suñu famille mu am ay problème parce que dañu photo copier alors que buñ doon ñun sama sama sama maam dafa doon ne sa pa sama pa bu amee problème tanton moo koy réglé ou bien oncle nijaayo mais mais actuellement ñu dañu ne papam ak yaayam ñoo réglé alors amoon na ay bajenu gox ay ay oncle ay nijaay ñoom ñoo doon saafara problème bi donc problème bu mu amee tey amoon na benn initiative bu amoon sax ci socioculture bu ñu jëloon comme initiative bu Foundiougne 1 Foundiougne maanaam ne bu ñu amee problème sa rak ou bien sa mag bi nekk sa wet mu ñëw jàppale la pour saafara problème defe naa tey bu ñu jëlaat beneen aspect boobu socioculture yi nekk yeneen côté yëpp ñu ñoo jàppale fii ñun ñi ci utum jàmm da dafay gën indi benn résultat bu bu am résultat bu rapide par exemple aujourd'hui tey am na defleen ñëw na Ndefleng boobu si je si je comprends bien Ndefleng communauté séeréer la mu am ñoo ñu ñëw intégré fi association mu am association Jàmbugum mu am association Koumel mu am association euh, des euh, des des des des Peuls de de des mu am ay Baynou mu am ay Mankagne mu am ay ay ay Star ñu am organisation yooyu ñu commencé di duggante seen biir di waxtaan naka la ñu amee jàmm suñu gox loolu déjà am na lu nga xam ne dañ ko daa renforcer. Euh, appel bu ma am pour pour suñu njiit bi nga xam ne mooy excellence Macky Sall le président ak gouvernement bépp manqué ne d'abord. ci volonté bu mu jëloon ne moom joxe ndax loxo responsable MFDC ñoom ñëpp pour ñu waxtaan loolu ñu ngi koy rafetlu ñu ngi rafetlu tamit décision bu mu jël mu ne def Casamance le pôle économique loolu ñu ngi koy rafetlu mais lu ñu ci bëgg a sont euh, yokk mooy na ko rendre plus concret mu gën a accélérer cadence bi accélérer cadence bi maanaam ambition bu mu am mu bañ a ragal leneen. def man-manam indi tous les moyens pour accompagner accompagnant ci loolu ci le plan socio-économique développement mais ci socioculture yi accompagner socioculture yi ne leen lu ngeen mun a def pour jàppale gouvernement ak MFDC pour jàmm ñoom parce que socioculture yi am nañu seen rôle important ci processus donc jàppale leen accompagner leen mun na tamit vraiment avancer si processus lu may ñaan nguur gi leneen mooy mu nangu waxtaan ak ñëpp maanaam fraction MFDC yëpp ku mu amal possibilité waxtaan na waxtaan ak moom maa ngi profité tamit ci ne euh, le chef de guerre Salif Sadio moom tamit ñun ndaw ñi ñu ngi koy ñaan mu teg lépp si suuf lu mu amoon mu mu waxtaan ak frère yi nekk yeneen faction MFDC parce que c'est important ñoom ñëpp ñu booloo ñu am un représentant ku nga xam ne dafay gën a facilité pour ñu waxtaan ak nguur gi loolu ñun ñu ngi koy ñaan te moom nu mu ko waxee tamit moom teg lépp moom engagé na pour processus de paix ñu ngi ko remercier ci loolu César Atoute Badiate ak yeneen responsable bi yëpp ñoom tamit engagé nañ ñu ngi ñaan ñoom ñu nangu ubbeeku waxtaan ak nguur gi waxul ne ubbi waxtaan ak nguur gi mooy dañuy nangoo lu nguur gi di wax non ma ñun leen wax ñu dem déglu nguur gi nguur gi wax leen lan la ñoom tamit ñu wax leen seen xalaat ñun loolu la ñuy soxla ñun ñu ngi ñaan responsable MFDC ñu def jéego yooyu ñu accepté dem wax déglu gouvernement bi lu muy wax tamit gouvernement bi mu nangu déglu proposition yu MFDC def comme ça bu ñu déggee ku nekk am na proposition mu bañ a am benn point bu ñu rejeté l'essentiel ñu dem ci table négociation ci la ñu soog a commencé waxtaan ci bii nangu nañu bii nanguñu mais ñun ñu ñuy laaj vraiment pour que ñoom chef de chef de l'État mu ne moom am na volonté Salif Sadio nee na am na volonté César am na volonté ak ñeneen am nañu volonté ñun lu ñu ñaan vraiment ñu dem toog discuter ñu ngi ñaan tamit lu amoon janvier ba ba mois de mai bii. ñu ngi ñaan loolu ñëpp teg fétal si suuf ñu privilégier dialogue ñu puisque ñëpp ñu ngi wax ne ñu ngi liggéey pour population maa ngi leen di ñaan ñu aar population bi ñu ñu pardonner population bi bala ñu dox seen dox ñu ñu liggéey vraiment ñu teg fétal si suuf militaires yi MFDC gouvernement bi responsable bi nañ toog waxtaan vraiment ñun loolu mooy suñu appel en tant que ndaw Euh, bi nekk Sénégal mais nekk dëkk dans région sud on appelle la Casamance principalement Ziguinchor. Casamance nag wax dëgg yàlla émission bi masu fi ñëw waaye tey ñoo ngi fi parce que Casamance dafa nekk foo xam ne ci Sénégal defe naa ni benn gox ëpp ko njariñ ci réew mi benn gox gënu ko màgg ci réew mi. benn gox aussi waru ko gën a avancer ci réew mi soo fi ñëwee di gis ni Casamance mel nga xam ni lu dul jàmm jàmm rek moo ko gën parce que Casamance moo waroon nekk ween wi Sénégal di nampe moo waroon nekk sàq mi Sénégal di lekkee te yu baree bare mi ngi fi am ay falsification histoire moo ko indi parce que histoire kenn du ko falsifier histoire histoire la Casamance Sénégal la bokk sénégalais yi ñi fi dëkk actuellement nii ñi ci ëpp boo jëloon population Ziguinchor ñoom ñëpp ñu ngi jóge ci yeneen région waaye du région Casamance lañ cosaanoo comme ni àdduna bi yëpp noonu lay doxee boo demee Fuuta di nga fa fekk koo xam ni Casamance la juddoo fi lay maamam nekk waaye tey jii Fuuta la dëkk dëkk yëpp noonu la demee organisation société civile lañu war a gën a jàppoo gën a doon benn gën a am doole su ko defee état du Sénégal ak mouvement des forces démocratiques de Casamance xam ne ni ñun kat ci biir dëkk bi la bokk te kenn mënu fi décider dara te boolewuñu ci loolu muy benn ñu yaakaar ne état du Sénégal aussi war na jóg bu baax a baax vraiment am benn volonté politique bu dëgër ne il faut que ñu régler problème mu Casamance. état du Sénégal war na mën a wone boppam c' est vrai que il y a eu des déclarations état bi def na ay déclarations le président de la république def na ay déclarations développé nañu ñu ngi góorgóorlu ci développement au Casamance mais c' est pas suffisant développement bi dafa war a ànd ak négociation yi te état du Sénégal war na ci gaaw jóg. du côté du mouvement des forces démocratiques de Casamance président de moom nee na pare na pour négocier loolu la président wax léegi mouvement des forces démocratiques de Casamance ñoom itam dañ ciy war a gaaw parce que am na ñoo xam ne dañ lay wax ne ni euh, ñun ñu ngi préparer suñu assise inter MFDC loolu muy euh, depuis trois ans benn wax boobu la ñuy dëgg am na benn parti boo xam ne bu saalif Sadio nee nañu ne ko mu ngi nekk di négocier mais suñu buggee def négociation yi nii. un euh, euh, euh, par parti par parti comme ça dañu yaakaar ne négociation yi duñu gaaw il faut que MFDC gaaw am njiitam ñu xam ne kii mooy njiitu MFDC état du Sénégal mën a wax ak moom donc ñun yaakaar nañu ne yooyu dañ ko war a mën a def. ñoo ngi ñaan yal na yàlla def jàmm Casamance te ñu xam ne am na lool kenn du ko dugal ci boppi population lu dul jàmm jàmm moo ko gën comme ni ko suñu xarit yi wax waxe sëriñ si. Euh, décideurs yi euh, homme d'affaires yi Sénégal yëpp dañu war a dugal nag seen loxo jàmm ñëw parce que jàmm ji ay xale ñu ngi nekk Casamance di ko dox waaye ñoom rek mënuñu ko sotal Sénégal yëpp ñoo ci war a bokk surtout kilifa diine yi comme nit ñi dañ leen di déglu defe naa ni kenn ku ci nekk muy tarixa bu mu mën a doon muy Touba muy Tiwaawoon muy Njaasaan muy Lewna muy Laayeen muy euh, Boukounta ca Ndiassane ñoom ñëpp xalif général bu ci nekk normal na nga sol sa dàll ñëw Casamance waxtaan ak ñëpp parce que xalif général bu fi ñëwoon soo demee ni danga nga bëgg a gis euh, euh, Salif Sadio jàpp naa ne mën nga ko gis te bu ngeen waxtaanee mën ngeen a juboo kon yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi def jàmm ci Casamance parce que wax dëgg yàlla réew mi fii dey kenn waru ko yàq parce que fii nit ñu baax ñoo fi dëkk ñu accueillant joolaa ngay gis rek muy sëy ak ñëpp ethnie yi ne fii yëpp am nañ jëkkër ci ci ethnie yëpp. parce que du ñu rejeté kenn du ñu bodd kenn du ñu xeet parce que fii boo fi ñëwee sax joolaa yi ñoom amuñu ay kaste xam nga da dem ci benn gox Sénégal ñu naan la géer géeg tëgg beeg géwal bi mais ñoom amuñu loolu ñëpp a fi yem parce que c'est un peuple tolérant c'est un peuple vraiment cultivé mais vraiment yal na fi yàlla def jàmm noo ngi koy ñaan sunu boroom tabaraka wa taala yal na wàcce jàmm Casamance bokk yi gis ngeen nag seen émission démb ci Casamance te dinañ ci dellu si gën a dem ba ca kaw bu soobee yàlla ay cas Brousse Brin Niassia dëkk yooyu yëpp nga xamante ni dëkk yu mag la ba Cap Skirring et Casamance nag gis ngeen ko muy dëkk boo xamante ni moo waroon doon sàqum Sénégal moo tax ñoo ngi ñaan yàlla na jàmm jàmm sëkk te wax dëgg yàlla ñoon bi ñu fa demee. li ñu sentir mooy dëgg-dëgg dëkk bi ëpp jàmm ci Sénégal defe naa ni mooy Ziguinchor parce que liñ fa nekk yëpp dégguñu fa agression dégguñu fa daara dégguñu fa càcc dégguñu fa dara contrairement ak fii Ndakaaru nga xam ni bis bu nekk moom loolu la ñu dëkkee kon noo ngi ñaan yal na fa yàlla def jàmm. di gërëm aussi suñu partenaire madame Sidibé ak fondation Sonatel nga xam ni ñoom dañoo jël rek. Euh, fas yéene di nu jàppale ci émission bi euh, di nu ci dimbali pour ñu dem defi ko ndax émission bi dafa jafe te maa ngi ñaan aussi sénégalais yi nga xam ni bëgg nañ réew mi ñu ñëw sponsoriser suñu émission bi parce que émission bi sénégalais yépp a ko bokk histoire yi Sénégal yépp a ko bokk te yaakaar naa ni euh, jàppale ñu ci am na solo kon ñoo ngi gërëm bu baax a baax fondation Sonatel di gërëm aussi waa Ziguinchor yépp ak teeru bi bi ñu teeru di gërëm nag euh, particulièrement sama caméraman bi ma àndaloon di Kaba nga xam ni wax dëgg yàlla moom sonal naa ko fan yooyu <laughs> waaw waaye nag maa ngi koy ñaanal yal na yàlla dolli xéewal te liggéey bi muy liggéey aussi muy bu am solo ci 2STV yi yal na ko ci yàlla jàppale ki leen doon présenté émission bi di seen xarit El Tall Ngol Ngol ñu di leen jox daje incha allah beneen yoon ci beneen histoire ci réew mi jërë ngeen jëf